ay affaire yooyu et c'était vrai parce que da ngay football janvier juin nga ñëw football ak coupe du monde. fekk football nga coupe d'Afrique donc on a nañ def glissement deux mille vingt deux mille douze lañ mujjee joué année paire ñu dem deux mille vingt treize. Afrique du Sud organisé première année impaire. après problème bi nag c'est qu'on a amené le loup dans la bergerie ayatu bu muy daanu dañ dem avec euh, l'accord de la FIFA ak yenn président africains yi. jaar fu ñu war a jaar ba indi ñu kenn koo xam ne muy tudd Ahmad un vrai guignol il faut dire les mots tel quels koo xam ne bu lakk français xamoo lu muy lakk bu lakk anglais xamoo lu muy lakk déggul français déggul anglais ñu indil ñu ko marionnette di koy pousse à gauche di ko pousse à droite def ci lu leen neex mhm. première erreur bu mu njëkk def déjà c'est de nous amener une coupe d'Afrique à vingt-quatre c'est une grosse aberration man les parce que tout simplement la Guinée-Bissau s'est qualifiée ça fait c'est une fierté neex nañu wala Mali Mauritanie s'est qualifiée mais c'est une CAN au rabais en tout cas moi c'est mon intime conviction mais loolu yëpp garaawul sax à 24 bi comme ça fait plaisir à nos amis eh, Guinée-Bissau Gambiens sax qualifié nañu donc ça fait une c'est c'est di c'est une fierté pour nous tous pas souci donc ça marche côté marketing ça marche mais sauf que aujourd'hui au moment où nous parlons xamatuñu ndax ñun suñu dinañ football kan xam loolu moo gën a bon li gën a bon ci nit mooy koo xam ne xamul cap. xamoo foo jëm xam nga xamoo foo jëm. xamoo foo jëm loolu moo gën a bon ci nit da ngay dox mais xamoo foo jëm deux mille vingt cinq Maroc daf ko waroon organiser en été. Mhm. juin juillet te léegi moom lu leer ba leer. c' est que ko organiser juin juillet parce que FIFA nee na day organiser coupe du monde des clubs à 32. Mhm. et ci coupe du monde des clubs à 32 yi Afrique ñaari club dong la ci am donc mais comme moom FIFA moom moom football kenn du fi football ñëppay taxaw ba ma pare. juin juin juillet jeex na donc doo football juin juillet nga ne après ñun suñu joueurs yi nañ jógee foofu du football août septembre c'est pas possible les Marocains ne vont pas l'accepter rax ci dolli euro mu ngi nii mu war a commencer au mois de juin Jeux olympiques a ngi fi. Mhm. Copa América a ngi fi. Mhm. dafa am benn guerre nag bi nit ñi waxul wala africain yi xam nañ ko waaye mënuñu si dara diggante FIFA. ak ak UEFA ñoom ñoo nekk di xeex. parce que indi coupe du monde de de, loolu yëpp c'est pour contrecarrer la toute puissance de l'UEFA mhm. qui a beaucoup d'argent mhm. qui n'arrête pas de réfléchir parce que boo xoolee même ligue ligue des champions yàlla bu la yàlla dog mhm. dama la ci yokkal rek FIFA dañ jëlee nit fële FIFA indil ñu ko CAF impose ñu ko muy véro ba nga xam ne léegi lépp lu jëm ci suñu programmation loolu mooy indi ne jël nañu lu ñu dugal ko dans la bergerie Gianni ah Infantino quoi qu'on puisse dire personne n'ose dire qu'il il y avait une main invisible pour Daniel Ayatou. après il a tout fait pour écarter Ahmad qui était une catastrophe. après mu indi ñu Patrice Motsepe. bi nga xam ne mu ngi toog fii nii et Patrice Motsepe boo ko laajee xamul kañ lay coupe d'Afrique di amee. et li gën a garaaw c'est-à-dire nit ñi bu ñu fàtte bu foofu laay jeexalee suñu suñu président suñu président président de la République am nañ ci responsabilité. voilà mais foofu laa Euh, Gianni Infantino lu mu waxoon africain yëpp jóg ne loolu du fi amee il nous a dit il faut qu'une coupe d'Afrique se joue tous les quatre ans à l'instar de la Copa América de la Coupe du monde des Jeux olympiques ñun rek ñooy football ñun rek ñooy jouer Coupe d'Afrique tous les deux ans mhm. te loolu li ko indi c'est parce que y a beaucoup de pays africains boo leen bàyyee organiser wuñu du ñu mus a créer infrastructure mhm. ayatu stratégie boobu politique boobu la développé mhm. pour dire su bëggee jox Mali infrastructure ay stade il faut ma ne leen organiser leen Coupe d'Afrique su ma ko bëggee indi Sénégal Sénégal fii boo organiser wu dara doo am dara il ne construit rien il ne réhabilite rien donc fi may jeexalee mooy mhm. affaire yooyu bu mu amee ba pare moom dans son dans xam nga léegi boo football 2025 2026 yaa ngi coupe du monde donc 2027 qui veut dire que jóge nga 2000 coupe du coupe d'Afrique bii nii yaa ngi football nii 2023 yóbbu donc su motee quatre ans lui il va vous dire mais attendez moi je vous avais dit donc de tous les quatre ans donc vous pouvez le faire qui pour le plus pour le moins c'est ça la stratégie aujourd'hui qui est en train d'être déployée et l'Afrique ne dit rien pourquoi fi nga waxee nag moom moo am solo parce que quand même Infantino buy falu quand il vient ici il va rencontrer Diomaye comme c'est lui le président maintenant avant Diomaye il avait rencontré Macky avant Macky il avait rencontré Wade Blatter moo fi nekkoon di rencontré avant Blatter ils ont rencontré Abdou Diouf donc euh, dugal ci urne bi le dictat du président de la République d'un pays muy Sénégal muy Guinée-Bissau muy Guinée-Conakry boo mënta wax kooku moo koy naan diw ngay votel mu votel donc aussi ñun dañu am fulla suñu fa suñu fulla suñu fulla ak suñu fayda suñu bopp mhm. ñu xam ne kan mooy première Euh, première compétition rentrée de fonds de la coupe de de de, la CAF. su ñu fexee ba rey ko fii parce que tout simplement il y a une guerre entre l'UEFA et la FIFA c'est nous-mêmes côté boobu man pour man il y a un rôle des journalistes on doit le faire correctement et dire qu'il est hors de question parce que même Ayat même même même euh, Cameroun la vigilance de Samuel Eto'o cette CAN n'allait mm. n'oubliez pas. n'oubliez pas il donc il faut que les Africains ñu jóg. mais mais muy yéen les les les les consultants. muy les journalistes muy les décideurs. muy tout le monde pour ñu xam ne.